si ngoon ba léegi ñu ngi fi nga xamante ni moom moo di HLM di ñëw ci li nga xamante ni moom moo di euh, mariage Fatou Waré waaye tamit ñu jàkkaarloo koo xamante ni yaakaar naa kenn la ci moom euh, malgré li nga xamante ni moom la bokk di ko liggéey waaye tamit relation yi nga xamante ni am nañu ko di Padros Mbaye Padros nuyu naa la maa ngi leen di fay di la nuyu di nuyu internet yi leen di seetaan seen ay fidèle euh, internet yi nga xamee tout le temps ñu topp leen donc di la gërëm di am mbégte quoi vraiment. alors Padros sa teewaay tey du ñu la laaj lan moo tax waaye boo ñu doon wax sa diggante ki nga xamante ne moom moo di Fatou Waré lan nga ñu mën a wax ci moom. waaw faatu moom wax ci moom yomb na parce que teewal ko rek wane na lépp. Mhm. xam nga nit xewle nga ñëwal ko yaakaar naa loolu dara gënu ko foor bàyyi say ay yitte ma nekkoon ci liggéey bi ci ci suuf ba tey jóge ca liggéey ba noppi dem sama kër soppeeku ñëw ngir taaral bésam parce que nit amul lenn lu dul lii. parce que man xam naa li mi saf xam naa lu bés di mel ci nit bërki dem bi ma xewlee àdduna bi yëpp dañoo ñëw wuy ma wuy si bin ma wuy si danoo taaral sama bés ba nu wax ni musunoo gis bis bu mel noonu donc nag ku ne bu sañoon am bis bu mel noonu nit ñi ñëwal la ñëw fekkeel la ñëw teewel la ñëw taaral sa bés faatu nag suñu diggante ak moom dafa yàgg du euh, média moo nu boole dëgg la yàlla dogal na ñu ñëw daje ca E-Media di liggéeyandoo ensemble mais Lata Emedia dafa nekkoon nit ku spécial ci man en tant que artiste ma buggoon ko soppoon ko yàlla di def ñu dem ba daje tamit ci euh, millier yi xaritoo bi am ñu jóge foofu dem ba bokkaat fu ñuy liggéeyee mu ñëw rek fekk si ma Emedia donc neex a àndal nag bi mu dogee ñëw mën naa ni Boubacar yu ci bëri ci sama loxo la ko doon teg ak moom donc yu bëri maa ko doon encadré maa doon waxtaan ak moom maa doon jëflante moom lépp tamit loolu mu nangul ma ko lu muy def woo ma allo sama mag ji nangam sangam ma ni ko defal lii defal lii lu muy def partage ko ak man lu muy def cest à dafa dem ba nekkatul sa affaire télévision ak rajo rek la ñu war a waxtaanee maag moom day jékki-jékki toog woo ma téléphone allo euh, sama mag ji ma ni ko waaw mu ni ma waaw nangam c'est-à-dire créer ay affaires yoo xamante ni day gën a rattaxal diggante nit ak nit donc te loolu c'est pas évident ci doomu aadama donc bu ko nit melee ci yow rek xamal ni kooku ku spécial la. ana lan nga koy wax ci sëy bi parce que tamit ku ne xam ni sëy yombul waa surtout sëyu li moo di célébrité ku ne gis na ni muy demee à tout moment dañuy nemmeeku li nga xamante wax ni que li nga xamante ne moom moo di sëy bi ni ñu koy duggee moom moo tax lan nga koy wax ci sëy bi. non loolu moom terme yooyu bëgg naa ñu bàyyi ko Sénégal sëyu célébrité. célébrité moo siiw fii sëy bu nekk mi ngi fii tas sëy boo gis ci àdduna cest am na lu fa yàlla def ñii ñi ngi ànd ba abadan ba ba isa ba ba euh, ila yawmiddin ñii ñi ngi tas ñi siiw ak ñi siiwul yàlla moo def loolu c'est-à-dire terme boobu sénégalais doonu ko tàmm sëy nit ñu siiw ñu nit ñu siiw parce que ku siiw say mbir yëpp ci kaw lay nekk nit a ngi fii sëy ba divorcé te mbiram kenn yëgu ko donc dañuy ñaan ke yàlla musal leen ci yàlla musal ñu ci képp koo xamee yàlla teg na ci buum yàlla la yàlla musal ci euh, euh, bungu dok maanaam tàqali ko parce que nit loolu lay ñaan sa ngor sa digne ak sa dignité bi nga juddoo moo tax ngay ñaan boo duggee ci dara bañ ca génnaat noonu donc loolu la ñuy ñaanal ñëpp maa ngi ko ñaanal képp ku nekk ci buum ñaanal ko sama bopp ndax takk naa soxna ñaanal ko képp koo xamante ne rek yaa ngi ci buum mais faatu moom nit la bu am taalibe taalibe sëñ Fallu la aw bu so rek la yaakaar sa doom aw bu so bii rek la bëgg te taalibe sëñ Fallu du xamul leen lu lu yëfi taalibe faatu xam ngeen ko ci yëfi taalibe rek ngeen ko xam moom taalibe la euh, yëgul dara yëgul dara mun naa ni anti stress bi mu doon cest à loolu da koy wane ba ci biir néegu sëyam Fatou dafa naturel donc bu ànd ak jëkkëram li may dénk kay du ma ko dénk Fatou parce que xam naa ne nit ku mun a muñ la nit ku am dal la nit ku mën a engagé wu ci mbir boroom këram la ñuy dénk jàppal nu ko fonkal nu ko muñal ko jigéen dañu koy muñal weer gu njëkk bi euh, euh, un an yu njëkk yëpp coono ak naqar rek la da ngeen koy dund nag ngeen muñulante na ko muñul rek. waaw ci biir loolu nag dañoo am nguur gu bees am président bu bees waaye tamit doxalin bu bees ku ne xam ne ni dëkk bi changé na moment bi ñu toll naka nga gisee nguur gi ak toog muy dox bi nga xamante ne si jur na polémique ci dëkk beneen terme aussi toog muy dox amul fenn. amul fenn ku ci nekk la la yàlla cëralee ku ci nekk la la yàlla darajaalee nit ñi nañu nangulante Sénégal problème bi ñu am mooy que du ñu nangulante ñun ñun problème boobu la ñu am nañu nangulante gis nga li ñu am. ak ni nga mel non dama la koy bàyyee ni keneen mel dama ko koy bàyyee ba pare yéene ko ko yéene boobu bu ñu ko amoon rek c'est-à-dire Sénégal tey dépassé nañu fii yëpp nañu yéenante bàyyi affaire toog muy dox toog muy dox amul. voilà donc dañu naan ñenn ñi mën nañ leen dut baaraamu tuuma ñi jël alalu réew mi wala ñi nga xamante ñi ngi foowee alalu réew mi ñooñu mën nañoo wax ak ñoom waaye fii kenn toogul muy dox man déjà damay toog. muy dox man damay toog sama studio. weer bi ma la wax. waaw mais mi ngi noonu. kon tooguma muy dox. déjà maa ngi ciy boole wax maa ngi liggéey maa ngi sensibiliser maa ngi yee sénégalais yi maa ngi waxtaan ak ñoom maa ngi xool ci am naqar ma dàq naqaram maa ngi xool nu ma bégalee askan wi kon loolu du toog muy dox waaraate kat bal fa mu toog di waaraate mi ngi toog fi mu toog jàpp ñàmburam mais doxul mais xam nga pratiquement wax jooju dañ ko jël féetale ko ñi féete ci média bi ñi animateurs yi féetale ko waykat yi féetale ko taasukat yi bongomaan bi toogul muy dox mi ngi gàddu bongoom wër di xool fan la xew am mu dem taaral xew mi waykat bi la même chose animateur bi mi ngi toog ci tale bi mi ngi wax journaliste bi mi ngi toog ci télé bi mi ngi joxe ay information léegi kon kan mooy toog mi dox voilà donc loolu dañ koy wax ñi nga xamee ñoom ñoo yaafuus ñi nanguwul liggéey ñi nga xamante ne xamuñu liggéey xamuñu coono ba pare bëgg jariñu ñooñu lañ koy wax mais toog muy dox du du du alors loolu dañu gis ki nga xamante ne moom moo di sa patron Boubacar Diallo mu génn am fi benn vidéo boo xam ne génnoon na fi par nga ne moom moo di président Diomaye son excellence ko wax dañoo dagg vidéo bi wax ko ni bokkewut ak noonu naka nga gisee loolu waaw xam nga nag euh, bëggoon naa ci def vidéo bi période bi affaire bi amee pour sensibiliser wax benn affaire Boubacar du kat lu ñaaw Boubacar du def lu ñaaw Boubacar bi ko sénégalais yi xamee ba tey ci lu baax la ñu ko xam ci lii yëkkati Sénégal ci liy taaral Sénégal ci loo xam ne bu ko waxee kenn ku ci nekk fa nga toog sa xol dina set xool luy defar muy defar mu bokk ca xool ku mënul mu fexe ba mën loo la di jël alalam di ko def ci nit ñi di jël xelam ak xam-xamam di ko def ci nit ñi kooku du wax wax bu ñaaw sénégalais nag ñoo ko interpreter nu mu leen neexee dagg ci benn extrait et que am na droit poser question kay wax moom mooy wax bu poser question am na droit répéter question bi préciser ci question bi donc loolu bu ñu jël yenn kàddu yi di ko teg ci deru Boubacar Boubacar bu ko Sénégal delloowul njukkal kenn waru ko xarab mbaa nga di ko waxal quoi que ça nit ku def ci réew mi la créer télévision am créer entreprise bokk ak ñi muy liggéeyandoo di liggéeyandoo ak ñoom <clears throat> am lu muy def ci réew mi moo tax ne ka nga xam ne mu ngi toog këram te clavier am lu ne mu di ko wax Boubacar mi ngi xëy suba teel di fay ay impôts yu dul jeex ci réew mi donc kooku mi ngi jariñ réewam bu ñu gisee yenn kàddu yi nañu xool. yàkkamti nu benn problème ci Sénégal bu dul nit def erreur ñun problème boobu la ñu am nit def erreur rek ñu dal ci kawam nañuy éviter di yéene nit mu def def erreur bu nit defee erreur woo ko ba mu ñëw nga gàgganti ko nga defaraat ko nga conseiller ko nga waxtaan ak moom. d'accord suñu dernière question de xam naa du ma jàkkaarloo yow ba pare te laajuma la ko parce que concerné na la lu jëm ci li nga xamante ne moom moo di yéen ñi nga xamante ne da ngeen di takk ay soxna léegi euh, surtout yéen dañu ni dañu ni que dem ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk extérieur di leen takk bàyyi ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Sénégal ñu nemmee ko ci nga bokk ci tranche boobu naka ngay wax ci lu mel noonu boo bu toog di xaar jigéen defal la da nga góor bu toog di jigéen yor la da nga ñàkk jom góor bu toog di yaakaar ci jigéen da nga ñàkk jom loolu amul yàlla mooy boole ay xol dépendre ñu ci benn jigéen xaaruñu benn jigéen sukkandiku wuñu ci benn jigéen yàlla moo lay booleeg diw kam la booleel ci réew mi la nekk wala bitim réew la nekk xaw ma kala yàlla di booleel moom ngay àndal yàlla mooy boole ay doomu aadama nañuy jéem a positiver suñu xel yi nañu koy jéem a positiver mais lu nit def ci Sénégal au lieu ñu xool positivement la ca xew. mais négativement la ñu jéem a xool yàlla mooy boole ay doomu aadama yàlla moo par exemple euh, Diomaye ngi nii dafa bokkoon ci ñi ñu doon lim est-ce que dinañ bokk ci élection présidentielle ci diggante six mois ku ko waxoon di nga nekk président dina ko gëm yàlla mooy dogal ci diggante nit ak nit la ci am lépp yàllaa ko def doomi réew mi ñii danoo bëgg sëy ñun xale yi nekk bitim réew ñun ñoo leen war a dem jëli ji takk leen ñoo leen war a dem takk ji leen. noonu non mais dama la bëgg a expliquer par exemple. du noonu laa ko war a du laa ko gisee mais dama ni ña nekk bitim réew ñun ñoo leen war a jëli ji takk leen si sinon nasaraan see leen di takk ñi nekk fii ci réew mi doomi réew mi ñu ngi leen di takk ña nekk bitim réew nañu xool ci ña ca gën a taaru. ña ca gën a jongoma ñi nga xamante ne liggéey nañu ba am seen teraanga ba ba mu bari nga boole kook sa teraanga yow nga indi ko ci réew mi ngeen delloo si waat ko ci réew mi. mu mel ni madame Mbaye. mu mu mel ni madame Mbaye caramel ah, di liggéey ma ngoog di liggéey may liggéey maa la ko wax muy liggéey may liggéey bu nu amee sunu teraanga eh. investir ko ci réew mi mais du nu bàyyi ka nga xam ne moom moo nekk bitim réew nasaraan si jël ko baa keneen ku bokkut ak moom xeet di ko takk non waaw ah. jërëjëf